ñu ngi ñuy tooñ ñu ngi tooñ fi tooñ yem euh, dikk nañ sama wetu kër def fa simulation ne dañ fa dóor ba du fetal police enquête na xam na ne du dëgg mu suul ko dem nañ kër mbay Guèye dugal fa fetal porte plainte na waa ji convoqué nañ ko ah inquiété wun nañ ko bàyyi nañ ko mu dem tey jii kii kër sëriñam la demoon di ko ziyaare ji ñu dem te kat damay wax lu leer sëriñam bu mu fonk la ndax démb rek la dikk ci man jël ci un million ne ma may ma ko dama koy ziyaare ji sama sëriñ kon ku gëm sëriñam imam muy imam Cheikh ay nit fekk ko ca biir dóor ko léegi nag président la république muy gardien de la constitution euh, ministre de l' intérieur Antoine Diome moo yor sécurité intérieure gouverneur mi ngi fi préfet mi ngi fi commissaire mi ngi fi ñu ngi leen di ñaanaat encore ñii nga xam ne nii dañuy def lii ñu teg leen ci yoon kenn mënut a wax ne ñoom mën nañ taxaw ba kenn ku ne ñu teg ma ci sa bunt waaye nit bu nit tooñee nañ ko teg ci yoon ñàkk nit teg ci yoon dana indi violence te bu ñu indee violence nag wax dëgg yàlla kuñ fekk sa kër bëgg laa toroxal da nga fay ba ci man nii kon nag maa ngi ñaan jëlee ko ci président de la république ñaan ko Sénégal ñaan ko kilifa diine yi ci wax ji ñu wax ñu jéem a téye seen i nit ñu bàyyi violence bi élection ki la contre du sa ennemi nañ bàyyi loolu te tooñ baax na waaye li ma leen di wax rek nañ bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daawatul mazlum laay rodd walaw kaana fajiran kon nag ñi ngi ñaan yàlla ñi ngi ñaan yàlla ci barke nit ñu baax ñii tooñ lii yàlla fayul ñi euh, yoon même boo porté wul plainte le war na taxaw bu gisee violence je pense que plainte séddi civil la waaye droit public Alioune moom ko gën a xam suñ déggee ñu ne tey am na ay nit yuñ viol yuñ dal dóor police war naa jóg dem def enquête xool ka tooñ mu teg ko ci yoon ndax kat ëllëg ki ñu tooñ mën naa fayu de mën naa fayu waaw te loolu nag da baaxul nañ nañ moytu loolu fekk ñi ñi tooñ ak ku mën a doon mu teg ko ci yoon buñ ko tegee ci yoon rek jàmm am jàmm am yonent bi sallallahu alayhi wa bi Fatima bi nga xamee ne amoon na ku ku sàcc ñu ne dañuy dagg loxoom ñu ne mbokk la kenn du dagg loxoom daw daw ne law an na Fatima bintu nabi saraxat laxatantu yadda Fatima mii bu sàccoon ma dagg loxoom kon nag nañ jog ñu teg ñi nga xam ne nii ñoo tooñ ñetti tooñ yi ñu gis ci résultat jàmm am alunte na ngi nii looloo ko fi indi na xam ne ñun ragaluñ sore nañ fu ñuy ragale waaye ñii tooñ nag nañ leen teg ci yoon ñi ngi toog di dégloo nag